guddi ñaar fukkeel gi ak juróom ñaar ci weeru koor sopp nañ ko ci julli fukki rakk ak ñaar rakka bu ci nekk mu jàng fatiha benn yoon ak inna anzalnaahu fukki yoon des na ko bindal tuyaaba jutoon ne li mu bisi àdduna bi yépp te bu dekkee ca mbooloom yeneen bi sallallahu taala alayhi wa sallam lañu koy boole mbokk yi ku ci bëgg yeneen leeral nga dellu ci xurratu ayni bu Sëriñ Suwaybu Mbàkke page 150